asalaamaaleykum mbokk internet sunugal 24 point net pël bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal euh, nee naa leen à chaque fois damay kontaan Euh, di bég ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun muy seen site bi nga xamante ne bu am solo bi ba tax na nee naa leen lu ngeen bëgg ak lu ngeen bëgg a xam rek bu ngeen duggee Sunugal 24 ngeen gis ko ñun fii ñun ñoo fi ne du keneen ku nangu noppalu damay faral di ko wax à chaque fois seen émission Peul Fun Time nag tey mu ngi fii ci point E seet si ndaanaan bu mag bi nga xamante ne kenn du ko présenté muy Forza mbëru làmb ku dem équipe nationale ko kenn du ko présenté bëre paka gone mbuur bi bëre ki nga xamante ne mooy Abdou Diouf borom kon ko du ko présenté balaa may euh, jox forsa mu nuyu àdduna damay ñaanal ñi nga xamante ne dañoo dëddu yàlla oyofal suuf si seen kaw ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp ñu dellu seeni njaboot euh, ñi nga xamante ne tamit yàlla leen a teg nattu caabi féetee leen ginnaaw yàlla génnee leen fa ñu dellu seeni njaboot seeni activité di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na jàmm yàgg ci Sénégal jàmm yàgg ci àdduna bi yàlla na yàlla raxas xol yi ñu raxas xool yi tamit yaatal ko te xam ne àdduna amul solo fii loo fi gis day jeex lépp àdduna la rek Forza maa ngi lay ziar di la jaajëfal di la nuyu di la bàyyi ak àdduna. waaw pël bu rafet bisimilah ma lay delloo ziar bu rafet bu baax macha allah aussi damay tàmbalee fi nga fi nga tëjee rek da nga da nga tàmbalee fu am solo mooy ñu ñaanal ñi fi jóge man dama koy jël ñaan bi di ko jaaral sama yaay di ko teg. di ko ñaanal Sénégal gi yëpp ak ñi fi yëpp ñu war ñu war képp ku wàññeeku rek yal na yàlla woyofal suuf si sa sa kaw. te xaare la àjjanay firdawsi aussi may may wax tamit ñi tëdd si la hôpital yi comme ni nga waxee yal na yàlla fëgg seen bopp yëkki leen ñu dellu seen kër ñi nekk ci kër yi tamit tawat yal na yàlla yëkkati leen aussi comme ni nga waxee ñi caabi féete ginnaaw gënalul kenn ku ne mën na fa dugg ci façon bu ne képp ko fa dugg rek yal na yàlla yàlla tëj la ci barki alxuraan te boo fa génnee yàlla boo fa duggaat. amiin yàlla def loolu ci barki Seydina Muhammad may nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu fan ci Forza yëpp di jël nuyoo bi di ko teg sama loxo yi Pape Pape Mel Diop Mbacke borom jàmm ak jamono borom Dakar ak Cap ma koy ma koy jox nuyoo bi yëpp di nuyu waa écurie Fass di ko di ko tàmbalee ci président écurie bi Moustapha Guèye ak ñëpp. di nuyu waa Bargny Bargny mooy fu ma dëkk mhm. ma leen di nuyu bu baax di nuyu waa Yeen waa Ñangal waa Tubaab Jalaaw mhm. waa Medina ñi xam ne ñoo ma dalal ci Ndakaaru Njaay ah di nuyu tamit aussi sama ñi ma dëkkal muy waa Point macha allah mooy ziar ñëpp di baal ñëpp ah, ah. di ñaanal ñëpp jàmm. waaw mu ngoog bisimilah yàlla jàmm yàgg. Euh, Forza tey boo ma bëggee wax kan mooy Forza lan nga may wax. Forza gune lébu la. gu lépp la bu dëkk Bargny comme ni ma nuyoo noonu dëkk Bargny aussi màgge ci màgge ci taatu géej gi dëkk jaar yeen tubaab jalaaw ñangal jaar gàmbi mujjee ndakaaru njaay ci làmb waaw loolu mooy Forza tey jii boo ma doon wax sa làmb nan la dikkee ci yow loo may wax waaw ni mu dikkee mooy man dama nekkoon koo xam ne man dama mës a nekk sportif. parce que man nag jaar naa école football. mais yàgguma parce que góol laa woon après ma def basket basket bi nag yàggoon naa ci trop. parce mooy sama sport. après nag làmb doonul lu ma jàng làmb dama si juddu dafa dafa nekk loo xam ne sama sama sama fow dama ko bëgg trop. Mhm. daan ko daan ko fowee géej. may may nuyu sama grand Karim Diagne. ndax ñoom parce que Karim Diagne Abdoulaye Diop bu yeen ñoom yaaku aussi ma kay jaale rakkam bi Babacar bi mu nopp la ko yàggul barkaat démb la man sax yegguma fa ma koy jaale amin amin aussi ñoom ñu tett ma ci làmb ñu ma daan ko fooy ak ñoom di fooy géej parce man bëri fowukaay laa ko defoon mhm. ba bi may dem bay bëri ci ay mbappat yi du woon dama jógoon pour doon mbër mais dama ko doon foowee rek ma jël si lu nee nag ci mbapat ba mu dëgg ci yow. waaw bu mu dem nag ba mootuma ci dara xamoo nit ki li ngay foowee nit ñi naan demal bëri ji kon loolu da nga dem ba mootoo ci génn. Mm-hmm. làmb ngoog loolu moom ma andi ndakaaru njaay ma dugg ci làmb nga dugg ci làmb ji. Mm-hmm. waaw comme ni nga ko waxee rek ngay nekk di ko fawantu mm-hmm. say waa kër say parents bi ñu demee ba yéeg ne yow da nekk ci wàllu mbappat bi bëri bi lan lañ la wax waxuñ la dara. non ñoom du du bëgguñu woon ma bare du woon seen du woon du woon lu ñu xaaroon mu bare man déedéet. dañ doon nëbbatu man dama naan laaxu di bëri. ñun dañu dëkk xamoo famille yooyu yu xaw a yooyu rek. ñoom mm-hmm. xamuñu affaire làmb ak yooyu. parce que bi ñu ko miinee ci man la grâce ak man. Mm-hmm. mais tamit aussi man dem naa ba benn moo mootuma ci génn parce que dama amoon comme grand bu tudd euh, Baye Góor moom daf ma topp fu ne ci ay mbapat su ma ñëwee ndakaar sax grâce ak moom la. parce que moom moo ñëw waxtaan ak paa bi ak maire bi ba ñu ba ñu mujj nangu. nga ñëw di bëri. Mhm. nga ñëw nag ah. tey mën nañu xam forsa juddoo Tëngéej nekk doomu Lébu. jógee fa ñëw ba ñi waaw mhm. ñëw ba Faas bokk ci écurie bi. Mhm. te mën nga ñëw wax sa relation ak waa Faas naka la demee ba nga ñëw bokk ci biir écurie bi. waaw moom laa doon wax noonu parce que Baye Góor moo ma andi moo ma andi Dakar boole yow andi ma écurie Faas Baye Góor ga mag. ànd ak sama ndijaay bu ñu naan Assane ma ñëw ñu jaar Gueule Tapée kër kër sama kër benn pap bu ñu Alpha Kadam ñooyu tamit ay ñoo xam ne xaritu waa Fass lañu mais man Fass dama ko bëggal sama bopp parce que man maa ko man maa choisir écurie Fass. ñaar loolu kenn mënu ci dara. waaw man maa ko choisir ñoom ñu jàppale ma ci andi ma fa. ñoom bi nga njëkkee bëre arène sa premier combat. Hmm. noo ko dundee. waaw lu neex la parce que avant may bëre arène dama bëri mbapat ba. bi ma ñëwee dakaar mm-hmm. bi ma ñëwee Dakar taxul ma arrêté mbapat dama continuer samay mm-hmm. mbapat. ñëw ba yàlla def ma nekk champion d' Afrique champion du Sénégal mbapat. 2007 mm-hmm. maa nekkoon 2007 waaw maa nekkoon champion du Sénégal lutte simple avant may doon avant may dugg équipe nationale. parce que dama ko rampé. bi ma ko nekkee pare après ci laay doog am combat. ci laay doog am combat arène parce que man 2007 laa njëkk bëre. maa ngi bëri ci diggante Bombardier ak ak Tyson mooy làmb ji taxoon suuf noonu. Mm-hmm. ci laa njëkkee bëri leer na ñii naan leer waaw ci laa njëkkee bëri arène. ma bëreeg benn mbër bu ñu naan Djilor mu doonaan combat bu métti ci man quoi parce que boobu maa ngi doog a bëri arène. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que xeex bi. waaw yooyu mooy tax muy métti maîtriser gu ma woon xeex bi. parce que boobu man man mbëru simple rek laa woon. maîtriser woon xeex mi ñu demine woon ma ci xeex lool sax lool. Mhm. waaw ma jël ay coups yu mu dul fàtte. yoo dul fàtte. waaw mais terewul nag yàlla suturaal ma am ndam. waaw léegi gàccee duma gàccee daan moo ko faj. Mhm. après nga kontaan say mbokk kontaan mhm. xam nga tey palmarèsu mbër gars yi dañ koy bëgg. tey ñuy gis Forza di bëre. et tout bu toogee wax li nga xamante ne moo ne ci moom. mais day am ñoo xam ne palmarès bi ñoom da leen di intéressé da leen di neex torop. tey boo ñu naree wax sa palmarès tamit dafay. lépp du fi xaj mais nga cofal ñu si tuuti rek pour ñi nga xamante ne ñooy suivre Sunugal 24 point net ñoom tamit ñu mën a comprendre palmarèsu Forza. waaw palmarèsu Forza ñi nga daan ak ñi nga xamante ne daan nañ la. waaw man dañ koy bëgg. man ñi ma daan ñaari personne lañu. man pakala moomu daan ak benn mbër bu ñu naan Jordan. Jordan waaw. mais alhamdulilah combat yi des yëpp yàlla dama suturaal ma ci am ndam. combat yooyu naka nga surtout bu pakala bi. Hmm. puisque bi ngay bëri ak bagala ñëpp nee nañ dafa garaaw mbëru mbuur bi ñëpp jox la fa weer bi nag nee nañ dafa garaaw donte dafa garaaw mais yow lañ joxoon fa weer bi. Mhm. naka nga dundee yéen ñaar seen combat bi nga amee défaite. waaw ni ma ko dundee mooy après combat bu combat bu ma dundee euh, sant yàlla la parce que bagala may bëri moom dama toog trois ans nekk ci blessure dama dama dama dama dama def opération faju tànk waaw mu def opération faju toog trois ans bréw ma mm-hmm. mu toog di xaar moom muy compétir euh, ba benn moment après boobu mootuma sax xaar aussi may remercier sama encadrement parce que encadrement bu baax moo tax ma mën a bëri combat boobu ma ñëw bëri ji ko ci loo xam ne sañu ma taxaw na cent pour cent la woon mais nag 100 pour cent dafa am lu koy motal mais loolu mu ngi fi woon muy motivation bi muy jom ji yàlla suturaal na mu loolu mu ngi fi woon ñu bëri combat bu métti xaaru moon combat bi nag ñu bëri ko ay 18 que combat bi jeexoon na parce que combat bi yëpp maa ko dominé mu am 4 mhm. avertissement man aw ma man aw ma avertissement moom mu am 4 avertissement ma dominé combat bi yëpp 18 minutes te moom mu doon compétir te man mhm. compétir ma mais ba euh, dernier moment tamit aussi yàlla suturaal ki mu yegg ma fu mu war woon yegg mu am ci ndam. yàlla may ko ci ndam. Mhm. dëgg la léegi dañuy gis ne soo amee combat pour nga amaat komba dafay jafe. Mhm. te nee nga bi ngay bëri ak pakala encadrement bu baax. moo taxoon nga bëri combat boobu encadrement bu dañ la woon ginnaaw wala da nga nekk da nga am jafe-jafe ñi lay jàppale ci combat wala da am jafe-jafe comme ni ko gars yi waxee mbëri parce que mbëri ñooy dox combat yi lan tax ngay am problème combat. waaw man du mën a la parce que man sama manager depuis ma dugg ci làmb ba léegi moom signé gi rek la mën a signé signé dem dem sama combat ñëw rek la ma seex ak man man sama manager mosuma wutal combat man sama combat mu ngi taxawee si diggante Tafa Gueye ak Pape Mayone bi mu duggee ci làmb ba léegi sama premier combat Tapha Gueye moo ko taxawal. bi mu duggee ci làmb ba léegi sama combat mu ngi taxawal diggante Moustapha Gueye li nga wax sànq sama combat yi day saaxa yaay day mooy saaxa yaay mooy lu sorianto. parce que mbër yi na ma na ma na ma na ma. dañuy moytante daal ma gaa yi jéggal ci wax bi mooy que ragal gi ci ñoom la ñu war a dindi parce que nit boo demee ba am métier nga ne làmb mooy sa métier. Mm-hmm. da nga war a bàyyi ragal. ragal mooy ñu la naan diw ngay seet ay prétexte di wut foo jaar di wur yi wiiri loolu moo war a jeex ci làmba ji làmba ji daal bu dul ragal gi ñu ragal mbër yi tàppet gi ñu tàppet daw gu metti gi ñuy daw forza mu jaaxal ma guddi jaaxal ma bëccëg damay tëdd di nelaw di xalaat lu tax mbër yi di ma daw lu ma jël mais lan ma war mooy tax lool dañ ma war a jël voilà wax daa jiwaay nga ne da ngay tëdd ba guddi damay xalaat loolu pourquoi mbër yi ñoom pourquoi duñu jël forza mu bëre damay tëdd ba guddi yàlla xam na loolu ma koy xalaat. mais te pourtant dañ fa fay bëri ay adversaire làmba maa fi ëpp adversaire su ma la ko limal fii nii dañuy arrêté émission bi te. maa la koy limal ko ci mel ni Tapha Tine. dafa leer dañ mu doon combat yoo xam ne. Sa Thiès. Sa Thiès combat bu neexee noonu mosuma ko gis. Ama Baldé. mais moom xam maa ngi dégg la plupart damay toog ñu naan Ama Baldé Gris Bordeaux mais combat Forza Ama Baldé combat moom kaa daax te xam nga Ama Baldé la moom day xaw a xëcc lu ñëw. Mm-hmm. boo xoolee combat moo moo moo Malick Niang bi da ngay xam ne combat Ama Baldé ak Forza combat bu war a mën a nekk la te moment yi la baaxe woon. mais yow déggoon nañ fi gars yi di wax naan ñu ngi dox sa combat ak Malick Niang. loolu rumeur la wala gars yi ñu ngi ko. waaye nag kii xel bu rafet dama lay wax Malick Niang du jël sama combat de. la moo <laughs> da moo tax du ko jël ñaari lebu ngeen. waaw ñaari mais lan moo tax du jël sa combat loolu laa bëgg xam te. du jël sama combat de. mais lan moo tax. xam nga boo dindee dara da fay teg dara. waaw ah, merci si li wax noonu wax nga wax bu am solo. parce que nit ki boo dindee dara te tegoo fa dara li nga li nga dindi amul benn njëriñ. déedéet. parce que man dama déglu woon benn émission mu naan non Forza. Mhm. du ci xaalis du ci palmarès du ci dara. moom mu ne kii juum na est que xam nga ne Sénégal dañuy dañuy réer mbir la plupart. ah kii Malick Niang ñetti grand combat ma sa bëri mbaa xam nga lool <laughs> non xam am na mbër yoo xam ne ma leen di félicité ku mel ni Sa Thiès boo bëreeg moom da am réer parce que yàlla moo ko may da nangul dafa am coow làmb ku mali Ama Baldé dafa am coow làmb non pour dire vrai nit bul bëgg a moom ba doo ko waxal li nekk ci moom. Mm, xeesa sa naa la du la teree xees. déedéet parce loolu yàlla moo ko def si mm-hmm. ñoom. su ma ko nanguwul mu ngi si su ma ko nangoo mu ngi si ñoom dama leen di ñaanal kañ mu gën a yokk mais su ma dajee ak moom yàlla am si ndam si ñoom kaw seen kaw mais gis nga Malick Niang Xaadim Ndiaye de la bëreel Jones Xaadim Ndiaye de. est-ce que yaa ngi rappelé wu combat boobu. waaw bu si jógee man xam nga ban combat la bëri waat. Euh, Sa Thiès yàlla suturaal ko ci bu si jógee xam nga kan la bëri waat. Ama Baldé ba léegi ñëwaatoo si làmb ji de. ba léegi gisaatoo ko si làmb ji. yàgg na waaw kañ mu ngi noonu. te buñ la ko joxee nga jël ko. lu koy tere parce que mu na doo bëreeg maa ngi ñaar fan laa ko teg amuma lay. léegi gars yi gars yi ñu ngi koy dox wala doxuñ ko. doon naa ko dégg de. mais yow kenn woowu la. no doon nañ ma si wax man xam man moom man li may wax promoteur yi promoteur bu la neex laaj li may wax daa yomb dem leen wax ak mbër yi suñu paree rek nga ñëw wax ak man man yomb naa jubal. maanaam yow kay yomb ngaa jubal yow maanaam daal pare nga. man pare naa bu yàgg pare nga ca 6 heures bu yàgg. toog di xaar kon Malick Niang maa bëgg nga defaraat cër yi saal te waajal yéen ñaar combat loolu dafay neex. combat mënu kaa daax. ci àdduna. di ko jël de. mais <laughs> yow tamit nag. bu yàq sama émission waa ñu gis ki nga xamante ne mooy Gris di jub ci li nga xamante ne mooy combat diggante moom ak Reug rek euh, ñu ngi sax nekk li nga xamante ne mooy euh, regroupement mais yow gisaguñ la ci dañ laa woowagul wala lan mooy problème bi. non loolu allah merci si li ma laaj man xamoo nit ki lu mu bokk kenn du xaar ko ci woo loolu dama cee bokk dama xaar ko ma ci woo mais nag day nag am na ñoo xam ne bu la yàlla booleeg ñoom. ñoom bu ñu tolloo ci li ñuy def waaw ku mën a ku la mën a soxla moom kooku day ñàkk bu kooku pare mooy sama kilifa gi mu lay wax Pamel Diop yàlla def na mu doon waajal mm-hmm. mu doon waajal liñ naan nekkoon ci campagne campagne présidentielle nit ki nag amul lu dul bésam moom mu doon koo xam ne kenn la ci man lu ma nekk moo ci man kon nag bu nekkee ja bu nekkee ci dara man damay bàyyi lépp lu ma waroon nekk ba mu pare mu doog a nekk ki mu war a nekk. tey loolu la olof wax naa jinne bu bëggee Dakar ku yéeg daal. waaw loolu moo waral mu nekkoon ci campagne yi di ko jàppale doon ko ñaanal yàlla pour yàlla may ko si ndam alhamdulilah rabbil alamin yàlla may ko ndam tamit aussi point bi. point bi xam ne moom fi la dëkk. Mm-hmm. yàlla may ko mu yàlla suturaal ko mu gañe fi. macha allah léegi looy wax Gris 2 ci diggante moom ak Reug Reug. Ah, combat boobu combat bu inter combat bu important la ci Gris ci Gris ci Reug Reug parce que ñaari xale lañu ku ci nekk nekk sa yoon ku ci nekk yaa ngi dem mais tamit Reug Reug sama mbokk lébu la mais tamit aussi Gris Bordeaux Gris 2 sama rakk la ñoo bokk même même couleur bu ñuy défendre. ma koy ñaanal ci combat bi yàlla may ko ci ndam. aussi ñu ko ciy jàppale bu baax moom xam na ne sori nañ ko mais suñu xol mu ngi fa ndax tout le temps ñu ngi waxtaan ak ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak moom. waaw ba tey rek maa ngi ciy déggante dafaa géej mu wax na ne entraînement yi war nañ ko rek commencé nag léegi ñun ñëpp ñuy daje muy mercredi incha allah. mais gars yi dañuy faral di wax naan mbëru Fass yi duñu entraîné loolu lan moo tax gaa yi chaque jour ñuy faral di wax loolu. waaw loolu mën na nekk nag xamoo tey jii euh, nit bu ñu ko yabee rek si doxin bi la faas bu fekkee dañu am nu ñu teewu ñu dem ba bàyyi ko tamit ci ñoom la man aw ma man ma ko défendre loolu aw ma lu ma ci wax. lenn rek laa ci mën a wax nit ki moom booy dégg loo xam ne daaw ko dégg léegi nun ñi xam ne ñoo porte drapeau nañu xoolaat suñu bopp. loolu lay wax ji waaw loolu rek laa ci mën a wax. waaw tey làmb ji gars yi tamit dañuy faral di wax ba tey rek nee naa du samay question question askan bi la ñi nga xamante ne dañuy dund làmb bëgg ko seen biir xol mooy daw làkku man moom laa ko tuddee daw làkku yi xaw ma nag yow sa gis-gis ak li nga nar a wax xaw ma lu mu doon mooy que mbër yi nga xamante ne dañoo war a bëri seen biir. Mhm. tey Forza nekk écurie Fass dem lonkante ak ama neex naan ay sama mbokk la du ma bëri ak moom loolu naka la nar def ci làmb en tant que mbër ma doon wax loo may wax. waaw loolu xama man moom am na loo xam ne man lim naan nit dafa lëndam nit yaa mën a juger sa bopp nit nit doomu aadama moom kese moo mën a juger boppam man lépp lu ma def man rek maa mën a wax lu tax ma def ko mais nag war nañu mën a xoolaat dara ñu si bari fii làmb moo tax ñu xamante hmm. euh, li tax ñu xamante moo war woo ñu war a boole ñu war a mën a bëri suñu biir te du yàq dara suñu diggante man tafaatin sama xarit la tafaatin sama xarit la mais dañuy bëri ah. <laughs> si dañuy bëri. après bu jeexee jeex waaw bu jeexee loolu yaa xam sama diggante ak moom parce que làmb moo ñu tax ñu xamante après mën nañu bëri mais après aussi sportif lañu li ne war nañ ko mën a gérer suñu mentalité dépassé na loolu. Mhm. Mm. Euh, tey ku ci mel ni Moustapha Gueye. Mm. ku ci mel ni Papa mm. bi nga xamante ne mooy diggante Balla a 2. ak Modou Lo bi ñuy bëree coow li bëri na torop mm-hmm. Moustapha Gueye nekk écurie Fass ñu ne mu dem di jàppale ki nga xamante ne mooy Balla te bokkut tax moom écurie yoru ko mu yor li nga xamante ne mooy écurie ay xale boot ci ginnaawam Papa Sow nekk écurie Fass mais parcelle la dëkk dem di jàppale Modou loolu naka nga koy jàngatee loo mën wax Sénégal maa ngi leen di maa ngi leen di euh, parce que Papa Sow ak Papa ñoom ñaar dañu nekk ay doomu parcelle. yàlla boole leen ñu mës a bëre ñu am fu ñu jaaroon ah je pense que kenn ragalul sa morom mais nag nit ak nitam am na lu leen di boole mooy que leen boole mooy dañu dëkk parcelle ku si nekk am loo fa am ñu jël li ñu am boole ko muy benn te waa parcelle moo ko bëgg awma lu ma ci war loolu na leen nañu ànd ànd bu rafet yàlla jubaale leen terewul ku si nekk xam ne dafa am couleur booy défendre Papa Sow écurie Fass ay défendre Modou Lo moom écurie Rock Énergie ay défendre. tey boo doon bëree euh, exemple boo doon bëree mbëru parcelle. waaw léegi Papa Sow di défendre couleur euh, face. Hmm. di ko ñemee à 100 pour cent dañuy waxtaan rek. waaw si dinaa ko ñeme. di ko ñeme. waaw parce que non dama koy ñeme xam nga dama koy ñeme. Hmm. Euh, je pense que man. làmb dafa kii dafa doy waar rek. làmb doy waar gi mu doy waar moo tax ma ne dama koy ñeme parce que man li tax ma koy ñeme mooy que man yéene ma ko la dool jàmm. man nit leneen leneen ma ko lu jàmm te gëm naa ne jàmm la ma yéene. waaw ñu ñëw aussi Pierre. ñu ñëw aussi Pierre. Pierre Tafa Gueye. waaw waaw Tafa tamit li ma ciy mën a wax dama man écurie Fass laay soññiwaat bu fekkee ne dañ dem ba suñu suñu suñu père nit ñu di ko xëcc naan pour mu ñëw jàppale leen kon ñu war a xam ne am nañu produit boo xam ne wax dañ ko mën a téye bu baax boobu nañ dem waxtaan ak moom ñu téye ko ba moom dootul am jotu keneen écurie ñu xoolaat seen taxawaay. tey jii Tafa boo ko waxee dara yaa ko tooñ euh, Papa Sow ko wax dara yaa keneen ko wax keneen dara yaa ko tooñ parce que xamal moo tax dafa am lu manqué ku ci nekk di xool foo jëm te xaw ma lu ko waral léegi nag léegi dañu war a delluwaat dugg suñu ruux ana nekkan ñu xoolaat suñu bopp waxtaan ak suñu kilifa kilifa yi waxtaan ak xale yi mag ñi ku ci nekk li manqué ñoom wuti ko ñëw tekk pour différent ah, mën loolu laa ko jàngate léegi nañ la euh, tey mun nga ñoo wax yan mbër nga fi bàyyi comme ni ko gars yi di defee du ma bëreex kii du ma bëreex kii. man kan laa fi bàyyi mbër moo mënul bëreel ku ma bëkkal ku ma bokkal ak Fass laa fi bàyyi. waaw Fass waaw après mooy mbër yoo xam ne mënu leen bëre du yàgg ba ngeen mën a bëri ci àdduna. mooy comme yan genre mbër. non mënuma lim boo limee da ngay lim keneen xamoo tey jii bu mu ne am na mbër yoo xam ne du ma bëri ak ñoom am na mbër yoo xam ne mënuñu dëkk bari ñi ma dëkk bari ñi di bëri ak loolu sama xel sama xol sax bu ko nangoo sama xel day bañ parce que boo. boo maanaam yàlla yow ci gàttal waa Fass yi nga waa Bargny. waaw ça veut la waa Bargny ça veut dire que bu ma bëree Bargny ñun ñaari war a bëree di xeex Forza moom mu ngi créer benn standard boo xam ne moom xaalis jaru ko ndam jaru ko dara jaru ko parce que bu bu kenn daanee ñëppay jubilé. Malick ñaa du ngeen ay mbokk ay lébu kese ngeen. ay lébu lañu. lébu yi daje mbokk lébu la war nañu mën a bëree Yoff am naa fay supporter moom am na fay supporter moom sax Bargny am na fay supporter mais dañu war a mën a bëri làmb moo ñu boole. waaw mu ngi mel ni kam benn mbër. Mhm. Tyson 2 man du ko dëkk ci làmb du ma ko dëkk ci làmb. mais bu ñu làmb boole woon tey ji na nañoo bëri. la moo tax doo ko dëkk ci làmb du ma ko dëkk ci làmb parce que sama mag la ci sama mag la ci secteur. Mhm. sama mag la ci côté bu ñu nekk. parce que moom am na benn doomu ndijaayam boo doomu bàjjanam boo doomu ndijaayam boo xam ne ñun ñaa ñoo ànd depuis ñu nekk xale ba màgg. waaw bu ma koy mbal ak nakaan Tyson 2 dañuy bëri mais day te dama koy mbalak rek wax ko lool. Mhm. mais dama kay wax tamit pour mu bàyyi ko xel ne àdduna mën naa dox bu loolu am. waaw ma lay jaajëfal rek di la kontaane. Mm. Euh, nee naa la lu neex du doy mais dañ koy dog ba beneen ma bàyyi bàyyiwaat la rek nga wax li nga xamante ne mooy sa kàddu gu mujj ci làmb après nga tàgguwaat ak fans si soppee ñi lay béggee. kàddu gu mujj ci làmb moom mooy ko. ñu làmb ji ñu xoolaat làmb ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. nañ ko defar defar gi xam nga fa la tàmbalee. Mhm. ñun mbër yi xam ne dañuy dawante ku ci nekk di seet koo xaritool ñu xam ne xarit mën naa nekk mais fii boo xaritoog mbër te bu la romboon jox la butéel doo ko naan kon du sa xarit <laughs> nañu xoolaat nag affaire yu tappale ñuy def ñu bëri suñu biir. deuxième chose mooy man awma loolu écurie Fass écurie coow li bari na ku ci nekk a ngi wax ñu nekk xamante nañu suñu biir amul kenn koo xam ne bu toog yow danaan man yii ñëpp jàmm laa leen kon nag nañu waxtaan suñu biir ñu xool lan moom manqué suñu biir ñu defaraat ko ñu xool faay yi lan la ñu jéem ko complété ñu xam ne aussi suñu encadrement bi lu mu baax baax baax te ñun jéemuñu xool ñun lutteurs yi lan moo mën a taxawal suñu écurie du mës a taxaw parce que comme Abbas Ndoye am ñeneen ñi nekk ci ginnaaw am Moustapha Guèye non kon yow lan nga manqué. Mm. kon nañu xoolaat suñu bopp ñu xoolaat lan moom lan la ñu war a defar ñu defaraat ko Tafa Guèye aussi moom tey mu xam ne amuñu lu ko ëpp moom amuñu lu ko ëpp. mu xool na tamit aussi moom li muy joxe keneen tamit aussi ñun soxla nañ ko nañ ko dencal rek pour ñoom waaw aussi may remercier sama papa Pape Mel bu baax di xam ne di wax ne aussi ma koy féliciter si li mu jóge di ko waaw mu moom kenn du moom sama sëriñ sama xarit waaw sama lépp fépp fu ne mm-hmm. kenn du moom Cheikh Pape Mel Diop Mbacke borom jàmm ak jamono borom Dakar ak mm-hmm. Cap Vert may nuyu waa Bargny yëpp di nuyu sama mbokk yi ziar ñëpp di baal ñëpp ak aussi di baal ñëpp ak jërëjëf pël bu rafet. fan looy teg seen loxo. waaw fan si moom maa ngi di bëgg bu baax rek. waaw di leen wax ne seen mbër bi moom mu ngi nii taxaw di xaar saison bi comme combat lay xaar. yaa ngi entraîné. comme waaw maa ngi laal mais nag pour dire vrai métteegul li mu war a méttee parce que dama lay wax sànq si li ma nekkoon moom bu ma ci nekkee moom lépp laay teg à côté mais nag dama siy caf rek. léegi pare naa làmba ji moo ma dese amoo benn activité liggéey jiw ma demoo fenn activité bi ma am mooy entraîné ñëw tëdd nelaw supporters yi moom lenn laa leen dig ndam amu leen ko mën a xañ mbër bu ñëw pare naa mbër bu ñëw pare naa pour bëggal leen lool yéen laa am amu leen ëpp bismillaahi rahmaani rahiim Malick ñaa bu ñëwoon suba ma jël combat bi pare naa Ama Balde pare naa Sa Thiès pare naa guy gi pare na nees pare na <laughs> euh, sama copain Tapha Tine pare na moom combat bu neex la mag moom waaw man ñëpp pare na ñaari copain yu bëri ku ñëw pare na dina neex de non copain la nii pour ñëwee ci day saf sàpp <laughs> mbaa du maa jéer yi day dal ak yëpp loolu mën ta ñàkk Tapha Tine ak Forza combat boobu ku ko tëggat moom foo ko jëme combat boobu combat du ko daax mais promoteur yaa ngi ñëw mais promoteurs yi xam naa ak campagne yu nekkoon tamit mën na tax ñu stand by mhm. mais daal promoteur bu tëgg combat Tapha Tine ak Forza mënu kenn mënul Tapha ak Forza combat mënu ko daax mhm. Forza Malick Niang combat mënu ko daax Sa Thiès Forza non loolu àdduna bu tukki la. loolu loolu loolu ma yàlla jégal baat bi sax loolu dara du ko waaw loolu lu neex la macha allah. boo bëgg rek nga lancé foofu benn message que àdduna amul solo mbër yi a bokk ndey bokk baay yéenay mayante xaalis lan nga leen di wax. waaw li nga wax noonu wax bu am solo la te moo fi nekk mbër yi mënuñu am lu ñu ëpp suñu biir boo xoolee lu xew mbër yëpp ay ñëw taxaw bu lu neex amee mbër yëpp ñëw taxaw lu naqari amee mbër yëpp ñëw taxaw ça veut dire que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais sport la ñuy wax muy sport boo xam ne cosaan la di aada amuñu lu ko ëpp nañ ko boole saa bu ñu saa bu ñu waree bëre ñu bëre bu jeexee mu jeex comme ni ko booy boobu di waxee bu jeexee jeex terewul ñu am jàmm waaw nekk ci lu war a nekk war nañu na ñëpp bëre combat yu bari war na mën a taxawaat mais daw làqu yi daa mel ni moo koy. yàqal daw làqu amul njëriñ da lay rek. day yàq da lay yàqal yàqal ñi war a bëre yàqal ñëpp maa ngi lay kontaanee di la jaajafal di big up ñi nga xamante ne ñooy suivre vingt 24 point net nee naa leen du fenn fii la ndax lépp lu ngeen bëgg ci information lépp lu ngeen soxla euh, fii lay xewee nee naa leen sunugal euh, moo fi ne tubaar fakàlla macha allah yàlla na jàmm yàgg ñu dem ba nekk li nga xamante ne mooy télé yu mag romb sax canal 24 ñun ay waxuma yenn canal 24 fu mu toll nii ñun moom la ñuy teg suñ suñ bët yi teguñ feneen lu dul canal 24 di jaajëfal sama caméraman yi euh, Daniel yow sama sama sama chrétien bi loo dund rek doyul suba nag incha allah la ñuy tàmbali maa ngi lay ñaanal jàmm <laughs> ak a bëgg lekk mais da ngay muñ di la ñaanal jàmm nga dugg ci ci al bisimilahi rahmaani rahim nga génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin ñun tamit xam nga ne duñ sorante su ko defee nag ñu bokkaat ndey bokk baay te ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla na jàmm yàgg di jaajëfal beneen caméraman bi di jaajëfal képp kuy yeewa sunu gaal 24 point net chaque jour ma wax ko képp ku yeewoo sunu gaal 24 point net maa ngi lay jaajëfal di la ziar di la ñaanal jàmm jàmm ci yéen dagg nga ma da ngay wax apparemment eggale amul problème. waaw may may may may damay damay saluer sama mbokki chrétien yëpp di leen wax ñu ngi waajal seen koor. Mm-hmm. suba incha allah incha allah suba waaw. ñaan yàlla yóbbu leen sa jàmm ñu dugg seeg jàmm. amiin seeg jàmm parce que man nag dafa dama apprécier chrétien yi. waaw parce que ñun. ay ay ay ay ay ay jullit lañu. Mm-hmm. mais dama am loo xam ne dama ko apprécié ñoom ñun euh, suñu mbokki jullit nañ xool chrétien yi si yaru. Ah. ci tey ci dal. ci teggin lu jara lu jara xool la. Mm-hmm. nañ ko xoolaat bu baax di nuyu tamit aussi sama mbokki jullit yëpp ñoo xam ne aussi ñun chrétien yi ak jullit yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. mais dama joxe benn exemple rek nañ xool ci yaru gi ñu yaru. Mm-hmm. ak dal gi ak tekkaaral gi ñu tekkaaral nañu xool ci loolu macha allah. yar nit. am nit mënoo am lu ëpp a yar mhm. te man loolu dama ko apprécier di leen wax tamit nañ ci góorgóorlu xamoon nit bu ñu la lii dafa baax ci yéen nañ ko gën a yokk ñoom tamit macha allah mhm, jërëjëf di kontaanee ñëpp surtout diaspora bi ñoom nee naa duma leen fàtte ndax dañ maa bëgg ba mu jeex te bëggantuwuñ ma di souhaité souhaité ki nga xamante ne mooy systématique Diouf borom Amérique di la naan happy birthday yow loo dund doyut yaay Mohamed loo dund doyut dundal di ko yàgg a féetee at yu bëree bëri képp kuy bëggee pël bu rafet rek pël bu rafet mu ngi lay bëggee. di jaajëfal nag nee naa leen sama rakk xol bi muy ki nga xamante ne mooy Seck Ndanane xale circulé doomu yaay Waly Seck moom nee naa leen lu ma sol rek macha allah moom la ndax moo ciy jàpp daal na sa jàmm yàgg yàlla na yàlla fulal bagage yi ah yàlla doxal njaay bi ba nga yëg ko daal ci barke Yonent bi ndax ñi nga baaxee sa xol baaxee noonu. lu baax da nga koy am ci kàttanu yàlla ndaxte xam nga nee naa la joxe dafa métti ci xol la te yow da na yàlla defal jàmm. gannaaw nee naa leen àdduna amul solo te lépp loo leen gis dafay jeex lépp àdduna la na rafet ñu raxas xol yi yaatal xol yi yéenante jàmm lool bu amee rek jàmm day am bu ko defee yàlla gëna wàcce wàccee jàmm ji jàmm ci nit ñi jàmm ci poos yi jàmm ci aajo yi lépp faj mu saawaan baawaan mu daal di neex du noonu. incha